أحييكم بتحية الإسلامية وهي تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa ta'ala moom mi nga xamante ne moom moo yeyoo mbooleem cant sant ko ci àddina muy njariñu kese waaye ñàkk koo sant it di ay lor ñoo ngi koy jéggalu suñuy bakkaar suñu ñaawteefi jëf ak suñu ay bekkan di seedene amul benn buur boo xamante ne jaamu ko dina andi njëriñ àddina ak allaxira waaye ñàkk koo jaamu di ay lor ci àddina waaye tamit ak allaxira di seedene aussi yonente muhammad salallahu alayhi wa sallama ab ndawam la waaye it jaamam la yàl na yàlla yokku di xéewal yonent boobu moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp di xenc sunnaam ba keroog bés penc ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a sell nuyoo bi nga xamante ne moom la waa aljana di nuyoo ci seen biir muy jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla nekk kenn ku nekk ci ñoom ñuy santaat yàlla bu baax baax ci jotaay bii ñu am nii muy jotaayu lislaam di sant yàlla aussi aussi si may bi mu ñu may ñu fekkeewaat weeru barkeel bi mu di weeru koor nga xamante ne weer la bu nga xamante ne dafa làmboo ay yiw dafa yomb it nit ki fàggu ci ay yiw lool waaye aussi weer la bu nga xamante ne weeru njëkkalante la weeru profito la ci def mboolem xeetu jëf yu baax te yàlla subhanahu wa bëgg ko te gërëm ko loolu sax moom moo waral suñu jotaay bi di jotaay boo xamante ne jotaay jaamu yàlla la ñu fas si yéene fàttalinte benn point bu nga xamante ne nii bu am euh, importance la muy wax ci li nga xamante ne moom moo du zikrullahi taala muy tudd yàlla mbokk yi kon li ñu bëgg fàttalinte mooy tudd yàlla subhanahu wa taala ñu war koo tënk rek ci ñeenti point ci gàttal te xam na yaatu na lool war na gën a sax mën a yaatu ñeenti point yooyu waaye dañ ko siy talxiis rek ngir xataayu jamono premier point bi nga xamante ne moom lañu ñu bëgg waxtaane mbokk yi mooy lan mooy tudd yàlla subhanahu wa taala tudd yàlla subhanahu wa taala tey suñ ko doon misaal dañ naan ne mooy mbooleem tur bu nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala tuddee na ko boppam bàkkee na ko boppam melalee na ko boppam rek dañ naan loolu tudd yàlla subhanahu wa taala la lu mel ni kii ay tahlilaat di wax ay laa ilaha illa allah ay tahmidaat di wax ay alhamdulillah ay tasbihaat di wax ay subhanallah hmm? ay tahli ah, ay xawqalaat mooy ngay wax ay la xawla wala quwwata la billah ak ay istighfar ak yeneen i xeetu tudd yàlla subhanahu wa yoo xamante ne ni yàlla moom moo ko santaane tudd yàlla boobu mbokk yi dafa nekk loo xamante ne nii lu war la ndax yàlla subhanahu moom moo ñu ko sante moom moo ñuy wax ci subhanahu eh, subhanahu wa taala mo ñuy wax ci alquranul karim di wax ne nañ koy tudd moom yàlla subhanahu wa taala ay tudd yu bëree bëree bëri moo tax dama naan ne lu war la kon dafa mel ni sax génn nañ ci melal bi nga xamante ne nii moom melal lan mooy eh, tudd yàlla subhanahu wa taala te ma eh, romba ci léegi muy ngay wax subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar ah la hawla wala quwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilayh loolu yëpp buñ ko boolee moom mooy tudd yàlla muy premier point bi donc deuxième point bi mooy war bi nga xamante ne nii moom lañu ñu war a tudd yàlla subhanahu wa soo nee war rek mooy loo xamante ne nii dañ la kaa digal c'est obligatoire yàlla subhanahu wa taala moo ñuy wax ci alquranul karim mu naan ne yaa ayuha alladina amanu zkuru llaha zikran kasira mu ne sama gaa yi gëm na ngeen tudd yàlla subhanahu wa taala ay tudd yu bëree bari mu dellu waxaat encore moom subhanahu wa taala ba tey mu ne wa zakiri wazkur fi nafsika تدرعا وخفية ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين yàlla subhanahu wa ta'ala mu ñuy wax ne na ngay tudd sa borom subhanahu wa ta'ala ci sa bopp intérieurement kon loolu day wane ne subhanahu wa ta'ala ab wareef la ba pare mu ñuy expliquer aussi naka la ñuy tuddee yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne nañ ko tudda fii nafsik na nga tudda yàlla ci sa bopp intérieurement te daru an ànd ak ak toroxlu waxifatan ànd ak aussi ak rag raglu ak ragallu maanaam ànd ak ragal yàlla ci tudd boobu nga koy tudd wa duunal jahri min al qawl sans autant que ngay wax ci kaw yow yaa ngi tudd yàlla maa ngi toog ak yow mais dégguloo ne man maa ngi tudd yàlla subhanahu wa taala parce que maa ngi koy wax ci sama bopp donc duunal qawli euh, duunal jahri minal kaw mata kañ lañ koy def bil odo yi wal asal, suba ak ngor n'importe quel moment mën nañu tuddu yalla subhanahu wa taala té buñu ñu bokk mukk mukk nak ci ñi nga xamantene ñom ñoo saggan walees tuddu tur yalla moom subhanahu wa taala mbokay damay gëna taxawaat ci laaya jooju subhanahu wa taala wax mu da nga tuddu yalla intérieurement ñu sétlu jamono tay li ñuy tuddee yàlla subhanahu wa taala ak nit ñu ko santee ni ci alquranul karim nit ku nekk am na xel ñu xool est ce que ñu ngi koy def ak li xamante ne noonu lañ ko sante maa ngi toog maa ngi tudd yàlla ci am mbooloo te nit ñi sax xamuñu ne maa ngi tudd yàlla subhanahu wa taala tudd yàlla boobu war na ànd ak euh, xiifa maanaam war na ànd ak ragal yàlla ak toroxlu ba dafay am lu muy travailler sax ci yow par rapport ak nga yor sa kurus par exemple wala ngay wax noonu rek subhanallah walhamdulillah di tudd yàlla te du am benn jeexital ci yow donc tudd yàlla boobu am na daal lu mu war a def ci yow <clears throat> maa ngi wax par exemple laa ilaha illallah en même temps maa ngi réfléchir ci kalimatu la ilaha illallah boobu may wax lépp li la ilaha illallah santaane est ce que maa ngi ci maa ngi koy bàyyi xel lépp lu muy tere est ce que maa ngi koy bàyyi ma koy bàyyi xel loolu daf lay jural sax ak toroxlu wala boog ngay def istighfar ngay wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mais astaghfirullah yooyu may def noonu maa ngi bàyyi xel sama bàkkaar ba ma defoon parce que ñun ñëpp ay def ay bàkkaar ñun ñëpp ay nit lañu donc yow moment bi ngay nekkee di wax astaghfirullah sa xel mu ngi dem ci bàkkaar ba tax ngay wax astaghfirullah wala ci bàkkaar yu bëri ya nga def ba tax ngay wax astaghfirullah su ko defee baat boobu ngay wax noonu dafa lay jural ak ragal yàlla dina la pousser sax à ce sa bët yi tëmb mën na la pousser sax ba nga jooy mbokk yi loolu mooy dëggi dëggi zikr loolu mooy tudd yàlla duunal jahli min al qawl bi ma ñëwaat ci encore c'est pas la ñu koy wax ci kaw mën nañ ko wax ci suuf comme ni ñu ko digalee do déranger kenn té sax fofu mom mo gëna a li nga xamante ne moom mooy sellal di mana ngay def ta yalla rek tax duñ la ah diw mi kat mom ku ragal yalla la mom de foko toll foko fu mu toll mu ngay tuddu yalla mu ngay ki non mën nga sellal sax waaye shaytan mën na fa ñëw participer ba sa sellal boobu nga doon def yak sa digënté ak sa borom kessé sax mu daal defay jaaré yaaxu donc li amna secret bu si borom subhanahu wa taala dëxëñ ci dunal qawl dunal jahri min al qawl c'est-à-dire nga bañ ko wax ci kaw yaa ngi man yow mi ma togal xamulo ne ma ngi tuddu yalla te pourtant ma ngi tuddu yalla ma ngi ci waxtan bi mais ma ngi bayyi xel limay tuddu yalla dama damaa bëri ma ngi def istighfar astaghfirullah yalla yalla ma jéggal ci sama xel bàkkaar bi ma def xol bi ma lama, la ma laaloon et cetera et cetera kon mbokk yi eh, tudd yàlla subhanahu wa taala lu war la laaye jii def koy firndeel waaye li taxoon ma taxaw ci tuuti rek moom mooy njariñ yooyu nga xamante ne ni moom la moom la làmbool xataa takbiraat yi ñuy def allahu akbar yi ñuy wax di ko zikr yaa ngi ciy gisaale màggaayu yàlla subhanahu wa taala ci ay mbindeefam ci ay kéemtaanam ci ay miracle ci ni àddina bi di doxe ni nit ñi di doxe ak yeneen ak yeneen kon euh, ndekete tudd yàlla boobu dafa war a ànd ak aussi nga bàyyi xel ci loolu ngay loolu ngay euh, wax ba tey mbokk yi bokk na ci li nga xamante ne moom mooy wareef bi nga xamante ne moom la tudd yàlla war ci nit ki yàlla subhanahu wa taala dem na ba xamal nañu sax ne ndekete nit ki bu demee ba fàtte sax bu tuddee yàlla la mu fàtte woon dana ñëwaat mu koy wax ci sootu kahfi mu ne baanose am seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wazkur rabbaka iza nasit na tudd sa boroom soo demee ba fàtte ba tey muy waxaat encore moom jalla wa mu ne wastaghfirullaha inna allaha kaana gafuran rahima dee leen jéggalu yàlla yàlla kat moom ku bëri yërmande la waaye kuy jéggale la maanaam jéggalaa kon la kon istighfar non seulement zikr la tudd yàlla la mais yàlla subhanahu wa taala daf la siy jéggal sa ay bor euh, ay bàkkaar yàlla dafa bëgg ku koy jéggalu dafa bëgg jaam bi à chaque fois muy tuub di dellu ci moom di ko jéggalu mu koy jéggal kon loolu ay tudd yàlla la mais aussi euh, ay euh, ay ay njariñu kese la yoo xamante ne nii moom la làmbool ginnaaw bi ñu indee dalaa'il yooyu ci alquranul karim muy wax ci wareef bi nga xamante ne nii moom moo war ci jullit bi pour mu tudd yàlla dañ koy indi tamit ci yonent sallallahu alayhi wa ay dalilam yoo xamante ne nii moom lay wax ci euh, tudd yàlla yonent sallallahu alayhi wa daf ñuy nettali fii mu ne dafa amoon benn saxaaba bu tudd abdullahi ibnu bushrin radiallahu anhu moom mu ne أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتثبت به ماذا أجابه الرسول فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الله أكبر أه، صحابة بيدي عبد الله بن busu من نتلي من دفن يوون تي ñëwoon امون dafa amoon muy ñëw ci yonente sallallahu alayhi wasallam manket ni ko ya rasulullah eh, man kat sharia islam dafa bëri ci man torop dafa bëri dal ndax dooma ci setteel dooma ci wax lenn rek lo xamanteni ni mën naa ci jàpp waaw loo xamante ne mën naa ci sax ah sallallahu alayhi wa sallam ne ko li ma la mën a wax day pour nga sax si mooy bul deñ di tooyal sa làmmañ ci tudda yàlla subhanahu wa kon lii xadis bii rek doy nañu ci tegtaloo bi ñu war a tegtaloo ne ndekete yàlla subhanahu wa taala tudda ko am na daraja am na martaba bu kawee kawe kawe kawe ci moom subhanahu wa taala donc jullit sax warul toog làmmañam di wow te tuddul yàlla maanaam warul toog euh, ba jug te nekkul koo xamante ne kuy tudda yàlla subhanahu wa taala lay doon kon loolu doy na rek ci ay tegtal ci ay aaya ak ay ahadis yoo xamante ne daf ñuy tegtal ci war bi nga xamante ne nii moom la tudde yàlla subhanahu wa taala war ci jullit bi kon dañuy ñëw ci troisième point bi muy ngëneel yi comme ni ma koy waxee rek ne yàlla subhanahu wa taala amul lenn lu mu ñuy tere lu dul ne suñu musiba rek moom moo ci nekk moo tax muñ koy tere waaye amul lenn lu ñuy digéen lu del ne suñuy njariñ kese kese kese moom moo ci nekk ba tax na tudd yàlla boobu ginnaaw bi ñu ko digalee daf ñu wax njariñ yi nga xamante ne nii moom moo ci moom moo ci ne muy fadlu zikre ngëneel yi nga xamante ne moom moo nekk ci tudd yàlla subhanahu wa taala en la ñu jël ci alquranul karim aaya ba yàlla subhanahu wa taala di wax naan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 taaru àddina la puukarewukaayu àddina la maanaam koom-koomu àddina la nekk am na lu ko gën lan moo ko gën mu ne al baaqiyaatu saalihaat muy tudd yàlla subhanahu wa moom moo gën loolu te ñun dañuy wax naan alal bi ëpp euh, maanaam euh, alal bi gën a riis ci nit ki moom mooy ak njaboot mu ay doom te kenn ku xëy génn sa kër li ngay fàggu ji mooy am alal joo dundee joo la woo waaye yàlla subhanahu wa taala mu ne am na lu gën loolu li ko gën mooy lan mooy tudd yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi xool leen nga ngëneel bi nga xamante ne nii moom la zikrullahi làmboo loolu moo gën fuuf ak yow yowmal qiyaam sa yàlla subhanahu wa waaye sax moo gën lépp lu nga xamante ne moom la ñuy njort pour am ko àllaaxira donc beneen aaya mu ngi nii di ñëwaat boo xamante ne ba tey dafay wax ci ngëneel yi nga xamante ne moom la tudd yàlla am yàlla subhanahu wa taala di wax naan والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا boroom subhanahu wa taala ngi wax ba tey ci ngëneel yi tudd yàlla am mu ne jullit ñu góor ñi nga xamante ne ñoom ñooy tudd yàlla lu bëri ak jullit yu jigéen yi nga xamante ne nii aussi ñoom ñooy tudd yàlla lu bëri ñooñu day yàlla subhanahu wa taala dina leen préparer ak njéggal waaye aussi dina leen préparer ak fay gu rëy rëy mbokk jullit yi ñun ñëpp kenn ku si nekk saa yooyu ñaan bokk na ci sa ñaan yooyu yaa ngi ñaan njéggalu borom subhanahu wa taala ndax ay nit lañu te dañoo bëri ay bàkkaar te bàkkaar yépp ki ci gën mooy kii tuub ndeke kon ngënee la ngi nii ci tudd yàlla booy tudd yàlla yàlla subhanahu wa sax dafa lay jéggal sa ay bàkkaar waaye du yem sax si jéggal say bàkkaar mais daf lay préparer li nga xamante ne mooy suñu objectif képp kuy jullit loolooy objectif am muy lan muy ah aljanna maanaam ak fay goo xamante ne nii fay gu kawee kawe lay doon te fay googu moom mooy aljanna yàlla nañ ko yàlla defal ñu ñëpp bokk na aussi ci ngëneel yi nga xamante ne nii moom la tudd yàlla am ba tey mooy ndeke booy tudd yàlla subhanahu wa taala dafay raxas eh, li nga xamante ne nii moom mooy sa xol yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax naan kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun seen xol yi dafa xomaak dafa ñuul ba mënuñoo dégg li nga xamante ne mooy waxu yàlla subhanahu wa taala mais lii Euh, euh, setalaat xool yooyu moom mooy alquranul karim kon dañuy déggee foofu ne kon ndekete alquranul karim ci tudd yàlla yi la bokk ndeke sax nag alquranul karim wa afdalu zikr maanaam tudd yàlla bi gën ci tudd yàlla yi moom mooy jàng alquran tilaawatul quran moo tax euh, yonente sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax fii bokk mu ne Euh, laa aqulu alif laam mim xarfun walakin alif xarfun walaam wa mim xarfun du ñu ne alquran boo ñëwee ne alif laam mim rek ñu ne benn xaraf la daal di la koy notel sur 10 déedéet mais dañ naan alif xarfu la sur 10 lañ la koy notel laam xarfu la lañ la koy notel mim xarfu la 10 point lañ lay notel soo ko boolee muy 30 mbokk yi. imagineel nga wax bismillahi rahmaani rahim ñaata xuruuf nga tudd foofu mbaa nga wax alif laam miim zalikal kitaabu laa rayba fiihi ñaata xuruuf nga tudd foofu te benn xarf bu nekk ñu la ciy fay fukki tuyaaba donc loolu soo ko boolee dafay nekk ay yiw yu bëree bëree bari moo tax mu ne tudd yàlla bi ci gën moom mooy jàng alquraanul karim kon dañuy gis foofu ne alquraanul karim tudd yàlla subhaanahu wa la moom moo gën ci zikri yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax fii ba tey mu ne toujours rek muy indi ci ngëneel li nga xamante ne moom la tudd yàlla am mu ne ana inda dhanni abdi bi wa ana maahu ida zakarani fa ida zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi fa wa ida zakarani fi malain zakartuhu fi malain xayran minhu wa in taqarraba ilaya shibran taqarrabtu ilayhi ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي أتيته هرولا muy wax fii boroom bi subhaanahu wa di wax fii si xadisul qudsi mu man kat man yàlla maa ngi ci sama njortu jaam bi maanaa sama jaam lépp lu ma njortawee rek man ci loolu laa koy fekk waaye aussi maa ngi ànd ak moom kañ su fekkente ne mu may tudd man yàlla subhaanahu wa yàlla mu ne su fekkente ne yaa ngi may tudd ci sa bopp man yàlla maa ngi may tudde ci sama bopp lan moo gën a rëy loolu mu ne su fekkente ne yaa ngi may tudde ci ab mbooloo man yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay tudde ci mbooloo mu gën mbooloo ma nga ne mbooloo moom mooy ban indal malaayika yàlla day nekk ca malaake yi mbooloo malaaka yi naa leen ah diw kat sama jaam diw doomu diw de nekk place tel mu ngi may tudd loolu lan moo ko gën a rëy yàlla sa borom di la tudd lan moo gën a rëy loolu kon loolu jar na <laughs> tudd yàlla keroog ngay daje ak moom mu ne aussi sama jaam bu fekkente ne mu may jéem a jege lu toll ni xasab man yàlla subhanahu wa taala dinaa ko jege lu toll ni zira waaye suy ñëw si man di ma jéem a jege lu toll ni zira man yàlla subhanahu wa taala dinaa ko gën bu fekkente ne dafay ñëw ci man di di di di waaxuse man yàlla su di dox man yàlla subhanahu wa taala dinaa ñëw ci sama jaam boobu di nekk koo xamante ne kuy jaa kuy waaxuse laay doon kon li mu bëgg a wane foofu rek mooy ne yàlla subhanahu wa ndekete luñ ko defal benn rek moom mu ñu fayee triple ba wala sax boo lu ko ëpp kon loolu ay njariñ la yoo xamante ne nii tudd yàlla subhanahu wa taala na ko ba tax mu indi ñu jooju di xadisul si ba tey aussi bokk na ci ngëneel yi waxu yonente sallallahu alayhi wa sallama ba mu génnee fekk saxaabaam yi ñu toog ci benn place dafa ñëw mu ne leen ala unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayran lakum min infaqi dahabi walwaraqi wa xayran lakum an talqu aduwakum fa tadribu agnaqahum ak waa أقناقكم ويضرب أقناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ay saxaabaam mu ne leen moo xanaa yéen duma leen xabaar duma leen wax loo xamante ne nii moom moo gën ci seeni jëf maanaam moo gën ci li ngeen bëgg di jëfe ñu ne ko axakay yaa nañ nga wax ñu loo xamante ne nii moom moo gën ci suñu jëf yi mu ne leen aussi moo wax leen loo xamante ne moom moo gën moo ci seen borom maanaam moo gënal seen seen buur mu yàlla subhanahu wa taala te sax loolu ma leen di bëgg a wax noonu moom moo gën a gaaw ci yëkkati seen daraja ak nit ni mu bëggee daraja waaye aussi li ma leen di bëgg a wax nii moom moo gën sax ngay dépenser sa alal wala ngay dépenser sa or mais aussi loolu moom moo gën sax nga dem ca front ba di daggante ay bopp yow ak noonu lislaam bi ñu nekk axankañ yaa rasulallah bëgg nañ nga wax ni loolu de mu ne leen mooy zikrullahi taala tudd yàlla mu koy kon mbokk li ñu jàngate foofu mooy ndeke tudd yàlla am na dayo boobu am na valeur boobu ba mu yegg ci moom moo gën nga dépenser sa alal ak dépenser alal ni ñu mettee dépenser or ni mu metti mais moo gën même nga dem ca front ba di jixaat même aussi moom moo gën fuuf sax nag ci sa borom pour mu yëkkati sa ay jëf waaye moo gënal fuuf sa borom subhanahu wa taala ah ci euh, ngeen di dépenser li nga xamante ne mooy seen fortune loolu li ko gën mooy lan tudd yàlla kon loolu dafa nekk loo xamante ne aussi ay njariñ la yoo xamante ne ni moom la tudd yàlla subhanahu wa taala làmbool ba tey bokk na aussi ci ngëneel yooyu xadiisu Utba tebnu Amir mi moom it ba tey def ñuy nettali mu ne nekkoon nañ ci benn place boo xamante ne euh, suffa la tudd benn place boo xamante ne nii suffa la tudd mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daal daal day génne wa nahnu fii suffatin fa qaal ayyukum yuhibbu an taghdu أيكم أيكم يحب أن تغدو كل يوم إلى البطحان kan si moo bëgg chaque jour mu xëy dem ba place bañ naan xaan tey jii su ma doon misaal Butxaan dama naan dëkk la boo xamante ne bu sori la bu leen sorila la comme ñun nekk ci Sénégal mu ne kan moo bëgg jóge fii dem ba Amérique wala mu jóge fi dem ba Canada par exemple wuti falan mu andi fa ñaari gëléem yu xonq te ba muy indi ci ñaari gëléem yu xonq yooyu deful bàkkaar mais aussi euh, daggul mbokk ah saxaaba yi nekk ah yaa rasulallah ñun ñëpp day bëgg nañoo dem ba place boobu dem indi kaw ma way ni naaqa tey ni ah andi ko euh, ci àndul ak benn bàkkaar te du ànd aussi ak benn dagg mbokk mu ne leen loolu day soo leen ko bëggee mu ngi mel ni rek ngeen xëy dugg ci jàkk ja nga xam fa ñaari aaya wala nga jàngee fa ñaari aaya wala aussi nga jàngee fa ñetti aaya wala nga xamee fa eh, eh, eh, ñetti aaya selon nombre de aaya ya ngay jàng foofu ci alxuraanul karim ca jàkk ja mi ngi mel ni yow dem nga ba dagg nga billet avion dem ba Amérique nga dem indi fa ñaari hélico par exemple parce que gëléem gu xonk jamono yooyu dafa nekkoon loo xamante ne nii alal la woon nga dem ba Amérique dem andi fa ñaari euh, euh, avion wala nga dem ba Canada andi fa ñaari avion kenn ku nekk bëgg na loolu xam nañ ne loolu alal la donc loolu li ko remplacé mooy nga dugg ci jàkke ji am fa ñaari aaya jàngee ko fa wala nga xamee ko fa wala ñetti aaya wala ñeent lu mu gën a bëri rek aaya yi nombre de nii yi gën a bëri kon loolu euh, importance la boo xamante ne nii bu rëy rëy la wala boobu njariñ la yoo xamante ni nii moom la tudd yàlla subhanahu wa taala am lii lépp dafay wane rek dayoo bi nga xamante ni moom la tudd yàlla am kon mbokk yi e, tudd yàlla bëri na lool ay ay ay ngëneel dañ ci tënk rek loolu e, te doyloo ko ñu ñëw ci quatrième point bi nga xamante ne nii ci la ñuy jeexale moom mooy danger bi nga xamante ne nii moom la ñàkk tudd yàlla subhanahu wa taala am comme ni ma ko waxé won rek ci ben ne yalla lu mu ñu tere dafa fekk ne gënul ci ñun waaye lu mu ñu sant dafa fekk ne suñu njariñ rek momo mo ci nek te yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mu ñu dafa fekk ne yalla mom momo ko sante lu mu ñu tere aussi dafa fekk ne yalla subhanahu wa taala momo moko ko wax pour mo téré ñuko motax mom yalla subhanahu wa taala mi ngi wax ci gaay yi nga xamantene ni duñu tuddu yalla mune waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka kep ku du moy sama eh, alquran bi yow di nga am ak dundu go xamantene dundu gu xat-xat lay doon dundu gu méttee metti lay doon te sax nak yow man xiyaam so dekkee da ngay nekk ko xamantene ni euh do gis da ngay nekk ku gumba ngay wax sama borom lan motax man adina ma nekk daan daan gis mais ma ñëw fii àllaaxira gisuma yàlla ne ko naka nii nga ñàkk gisee day nii nga daan fàtte suñuy aaya daawuloo jàng suñu alquran ci àddina kon noonu lañ lay noonu lañ lay fàtte fii ba tax nga nekk koo xamante ne danga dekki nekk ko gumba mënuloo gis kon alquranul karim moo gën ci zikri yi karim moo gën ci tudd yàlla waaye aussi alquranul karim dafa nekk loo xamante ne non seulement tudd yàlla na waaye dafay nekk sax nag lu lay faj dafay nekk loo xamante dafa lay raxasaatal sa xol bi comme ni ko ni ma ko waxee woon aaya si aaya alquran sànq ne kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaktibun moo tax yow saa mu wax ci benn xadis naan inna hadihi alqulub tasda kama yasdau alqadid qila ya rasulallah fama jalaauha qaal tilawatu alquran yow saa salaam mu ne naka lii di xool yi day dafay tilim dafay xomaat ba xuur ana lan moo koy setalaat lan moo koy raxasaat ba mu nekkaat xol yoo xamante ne ni xol yu baax lay doon mu ne leen jàng alquranul karim mbokk yi jàng alquranul karim moom mooy première zikr moom mooy le meilleur ci tudd yàlla moom moo gën ci tudd yàlla yi yi ciy topp nag topp ci mooy subhanallah yeeg walhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar xaw na wala quwwata illa billah hasbiya allah wa ni'mal wakil hmm? tudd yàlla yoo xamante ne yàlla moo ko santaane ci alquranul karim yàlla moo ko tuddee boppam moo ko mellale boppam tudd yooyu tudd yàlla yooyu la wax mbokk yi su ko defee ba tey bokk na ci danger yi nga xamante ne nii moom moo nekk ci ñàkk tudd yàlla subhanahu wa taala yéen saa dem na sax ba misaal ko mu ne masalu alladi yadkuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbahu ka masalul mayiti wal xay yow sa salaam mu ngi misaal ki nga xamante ne dafay tudd yàlla ak ki nga xamante ne du tudd yàlla mu ne kii tudd yàlla ak ki du tudd yàlla mu ngi mel ni ku dee ak ku dund c'est-à-dire yow mi di tudd yàlla toujours yaa ngi yow mi di tudd yàlla yow yaa yow yaa fi nekkul donc euh, kooku danger la ci danger yi nga xamante ne ni moom la tudd yàlla ñàkk ñàkk tudd yàlla am ba tey encore yo sa salam ngi waxaat ci danger yooyu mu ne ma jalasa qawman majlisan lam yadkuru llaha fihi walam yusallu ala nabiyihim illa kaana alayhim tiratun inchaa azabahum wa inchaa gafara lahum yo sa salam nee ne nit suñu dajee ba toog nekk ci jotaay ba jug te tudd yàlla dafay dinañ am ak wàññeeku ci seen borom subhanahu wa taala bu ñu toogee ba jub julli ñu si yonente sallallahu alayhi wa sallam aussi dinañ am ak wàññeeku ci euh, yàlla subhanahu wa taala yegg na ci sax ba ne su neexee yàlla mu mbugal leen su ko neexee aussi mu jéggal leen kon lii mooy euh, danger yi nga xamante ne moom moo am ci ñàkk tudd yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu limee ngëneel yi ak importance bi ak wareef yi ak aussi euh, farata bi ko yàlla farataal ci suñu kaw kon ñu yem foofu mbokk yi subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh